nga xamul yent bi fii yàlla war nañu lépp la ñuy gis yaa ngi gis rek kon loolu fëyte na boor des fois nga toog ak ku yor kurus nga yor kurus nii jël benn lim rek allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salati ala falah taqala allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salati ala falah taqala allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah allahu akbar dina moom الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم la ilaha ko noonu xam nga ñaata laa la ci may juróom fukki per laa ci may guddi gu ci nekk nga di ko def balaa ngay def weer sunu borom dana la wan ci ban xeetu wàll yu nga bokk ak ban couleur nga amee ak sa siège fan la ne moom ma la waxu fii te mbaas de nodd soo mënee def guddi gooy tëdd nga def nodd junni liqaam junni képp ku la ñaqal dem ajjana sallallahu ala muhammad ñaq rek nii rek ajjana ñaq rek ajjana gis nga bés bu ñu duggoon ci wàllu bilaal ak naayam li leen yàlla war a fayee ak ki leen di déglu boobaa ngeen xam ne nag dalu maa waxtaan la ma waxoon laay waxaat gis nga ñii di mbel mbele nii waxuma la ñoom seen bàyyi ci àll bu jàkkaarloo man daf may laaj may wax macha allah maa ngi sant yàlla bu baax moom bi nga xam ne moo ko def ci yuutil xikma man yasha xam man uutiya xikma faqad uutiya xayran kasiran bu ñu bàyyi xel nee nañ xam-xam la ñu yor muy al ilmu yàlla daf leen a xas waaw borom xam-xam yi yàlla xas na leen de wa maa uutiitum min ilmi illaa qaliilaa cim topp leen na de yor tuuti la kon du man maa yàlla moo ne li ngeen yor tuuti la kon léegi gars yi tuuti la